sunnatan sunna xasanatan bu rafet aw sayiatan wala sunna bu ñaaw maanaam li yàlla santaane dafa bëri du lépp lu baax rek yonentu jëf na ko déedéet parce que sabab yi tax mu mu jëf ko mën naa bañ a am ci jamono waaye lu baax lu ne santaane na ko su ko defee noonu la kon lu baax lu nekk yonentu leeral na ko moo tax lu mu baax doo ko xool ci lu yonentu def rek danga koy xool ci lu yonentu gërëm boo xoolee ci lu def da nga lu bëri ne baaxut fekk lu baax la ndax sabab bi tax nit war koo def xëy na xewul woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi dañoo hmm. waaye lu baax si boo koy xool ci ndax yonentu gërëm na ko rek da nga noppal mm. waral jamono ba ñuy dajale alquran aboubacar ba mu ko waxee seydina omar xadis bi mu ngi ci buxaari seydina omar def na ko ndax dañuy def loo xam ne yonentu mosu koo def mu ne ko xeyr lu baax la kon aboubacar am na dégg-dégg ne yonentu mën naa bañ a def dara fekk lu baax la mm-hmm. bu ci Omar d'accord si noonu lañ dox bu mujj dajale alquran loolu xadis boobu dafay jàngal ne yonentu man naa bañ def dara waaye loolu lu baax la mm-hmm. saxaaba yi dégg-dégg boobu lañ amoon mm-hmm. amu ñoon dégg-dégg bi e, ñenn ñi di wax yonentu defuru woon rek kon baaxul tax yonentu defu koon xanaa daf ko xamutoon xanaa daf ko nangam façon waxi yooyu kenn xamu waxi lan kon ku fekk loo xam ne ni lislaam gërëm na ko nga njëkk koo appliqué wala nga defee ko noo xam ne ni yaa ko njëkk a defee nii da ngay am tiyaabaab ku def sunna boobu waaye am tiyaabaab kala ci roy képp ku la ci roy yàlla dana bindal ko tiyaaba ba pare bindal la tiyaaba yow mi ko def bu dee tiyaaba gi téeméeri tiyaaba la hmm. yow mi ko def danañ la bindal téeméer kala ci ñu bindal ko téeméer téeméeram bi ñu bind laa la ko mu ñaar téeméer keneen royaat la ñu bindal kook téeméer bind laa la yooyu téeméer ngay am ñetti téeméer képp ku la roy rek ñu bindal la tiyaab hmm. loolu bu arbaa yi defee noo xam ne ñoom ñoo ko njëkk a defee mu teqale masail fiq yi leeral ko génne dégg-dégg yi ci xaddis yonent bi sallallahu alayhi indil ko nit ñi hmm. ba tey kuy wéedu ci xam-xam ci ñoom ngay wéedu façon boobu ñoo ko njëkk def ñu askane leen ko mhm. borom tarixa yi tamit ñoom ñële dañoo dox ci wàllu masalaay jaamu yàlla yi fiq yi yu feeñ yi aju ci cër yi mhm. ñoom ñu dox ci li aju ci xol yi ñii ñooy borom ngir yi ci wàllu cër mhm. la mu war a def ak la mu war a bàyyi waaye boroom tarixa yi ñooy borom ngir yi ci wàllu xol ni mu war a mel ak nu mu warul mel ñoom ci loolu lañ def taxasus même foofu la leen yàlla mayee ñoom it ñu dugg ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn ci ay masaayil yuy defar xol yu koy tàggat yuy defar jikko yu koy tàggat yuy defar roxo yu koy tàggat yu koy teqalee gàkk-gàkk yi ak tilim-tilim yi ak yu bon yi ba mën a jokkoog boromam xam boromam jublu boromam du jubloo ci leneen ñoom ci loolu la leen yàlla maye. ni nga gisee benn hadis bu ndaw benn borom mazhab mën cee génne téeméeri masala yu jëm ci wàllu jëf lante ñoom it noonu lañ mën a jëlee benn xadis bu ndaw génn ci ay junney masala yu jëm ci wàllu xol ku amut capacité critiquer borom ngir yi ndax ëpp gi ñu la ëpp dégg amoo capacité critiquer ñuy dox ci wàllu xol ndax yow côté boobu maîtrise aussi dara sax far bay am dégg-dégg boobu mm. su ko defee ñu ngi sant yàlla ci lim defal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ba lu ñu war a leeral leeral nañ ko da ngay moo xam doo xam delluwaay bi de waaye fekk rek waaye fekk rek wéeruwaay ba mooy xadis yonent bi ñuy dox ci wàllu xolit man nga see gis masala moo xam ne man ngaa bañ a xam wéeruwaay ba de waaye fekk rek delluwaay bi mooy xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> tey xale nañ nga jël laxdari jàngal leen jàngaloo leen benn tegtal hmm. waxi Abdourahman rek nga leen jàngal Hmm? Hmm. ñu gërëm ko ñu ne Malick wax na ñu gërëm ko ndax la ndax xam nañ ne Malick ci yonent bi lay balaloo dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy dox ci xol ñooñu ñoo gën a yelloo kóolute ñoo gën a yelloo topp ñoo gën a yelloo gërëm jàng seeni wax ndax lépp luy defar nit la hmm. bal sax ñoom lañu war a gën a yittewoo ndax yonentu wax ne ne yaram suuxoŋ si boo xam ne bu baaxee lépp baax bu yàqoo lépp yàqu loo déggee ci loolu maanaam ndekee xol moo ëpp solo jëfi zaahir jëf yu feeñ yi jëfi cër yi bu set moo ko ëpp solo yawma laa yanfau maalun wala banuuna illaa man atallaaha bi qalbin salim yawmal xiyaamati alal du jëriñ doom du jëriñ ku dikkal yàlla ci xol bu mucc rekk mooy jëriñ kon docteur yi yi ñoo gën a xel ñoo gën a jara xormaal ci docteur yi jëf yi docteur feeñ nit dana jëf te yàlla nanguwul parce que xol ba sellut waaye borom xol bu sell moom lu mu def yàlla nangu ko moom la xadis bu wax ne yàlla xoolul seen melo yi xoolul seen jëmm yi beneen riwaay mu ne xoolul sax seen jëf yi waaye seen xol yi lay xool ndax nit mën naa jëf fekk day gis sol yàlla xoolul loolu waaye xol bi lu mu jublu ci jëf ji loolu la yàlla xool beneen xadis yi ne innamal amalu binniyaat wa innama li kulli imrin ma nawa waxut maa amila de nit ku nekk lam jëf la ko yàlla lam yéene la ko yàlla fay waaye waxul nit ku nekk la lam jëf la ko yàlla fay kon di yéene mu ëpp solo kon ñuy dox ci xol ba nit ki di yéene lu dëppoog njub di yéene yàlla ci jëfam jublu ci leneen dëgg-dëgg ñooñu gàcc ngaalaam la leen war a wax waaye wax dëgg yàlla warul leen def ñuy barab boo xam ne dañ leen di sànni ay mbalit ak tilim te njub rek mooy seen biir mm-hmm. boo bañee tarixa nangam daal bañal mazhabu nangam waaye mënoo nangu mazhabu nangam muy dox ci wàllu jëfi zahir bañ a nangam te muy dox ci xol nit ki te xol yonent ne bu baaxee lépp baax kon kay war nañoo xam lu koy defar xam-xami xool nag dafa am ñu ko yàlla may yeneen mandu topp wël yi nangu leen su ngeen yàlla may leen xol bu ngeen mën déggee seeni mbir borom xol bu set rek moo mën a dégg nag seeni mbir yàlla jàngal na ko pour bon ne waliyu yenn mission yi ci loxoom la ko yàlla teg xam xam rusdu ci loxo waliyu yi lay feeñe di lee ko yonent yi nag ñooy balluwaay ba waaye ci loxo waliyu yi lay feeñe moom la yàlla waxoo man yuddilillaahu falan tajida lahu waliyan murshidan ku yàlla réeral du am yu bu ko jubal xam xam rusdu boobu moom la yonent yàlla musa waxoon xadri ne ko hal atabiuka ala an tuallimani mimma ullimta waxul ko ilman rushdan ndax du ma la topp Moussa moo wax alayhi salaam moo wax yonent yàlla moo wax xadir wëll yàlla la ne ko ndax du ma la topp nga xamal ma ci li la yàlla xamal rusdu xoolal ba mu koy xamal rusdu bokkut ak li nit ñi xam di zaahir def loo xam ne Moussa sax daf ko jaaxal loolay rusdu waaw Moussa rusdu la laaj waa ji rusdu la koy xamal waaye xoolal lan mooy rusdu foofu aaya jooju moo lay firi lan mooy rusdu mooy loo xam ne yow yow sa bopp sax loo bëri bëri xam-xam mën na daa jaaxal waaye bis boo amee xol bu waa ji am rek man koo dégg mhm. loolu alxuraan ko jàngale loolu bu doon xaddis nit ñi dañuy fexe ko jamee ne wérut ndax seen capacité xel mënu ko capté ndax lu dem ba jaaxal yonent yàlla Moussa waxuma laa keneen mhm. waaw koron danañ ko critique naan ab wól yi nu muy xamale yonentu ab yonentu nu muy critiqué nangam lu ne dañ ko ci wax ne xaddis bi maanaam bi wérut maanaam nas bi <coughs> wérut kon dàq nañ ko change la ak lu ne ñu ko ci waaye alxuraan alxuraan amul lu wérut moo tax mënuñ ci dara mais loolu jàngal na rek lan mooy rustu mm-hmm. su ko defee loolu dama la ko wax pour nga jàngee ci teey mais loo sa lu sa dégg-dégg yeggut góorgóorlu amaana sa xol bu leeree mm-hmm. nga dégg ni ko wàllu yu bi déggee te boo ko déggee ni ko wàllu yu déggee du am problème mm-hmm. rey nit <clears throat> toj gaalu jàmbur yëpp lu ñaaw la dëgg-dëgg ci ci xaqiqatan dimbale ay doomu aadama la ndax boo ko deful woon musiba ba ren dal mooy gën a métti loolu nag ku am xol bu set moo ko mën a dégg xol bu mel ni bu wëli bi di gisee mhm. su ko defee noon la kon ñuy dox ci wàllu xol gàcci ngaaraama soppe yaa ngoogu wëli yàlla yaa ngoogu jëf melo xol la moo tax defaral xol rek bu xol baaxee jëf baax mhm. gis nga ku rëy du jëfi ku lay cër yi def ku wàccee boppam te yàlla dox du jëfi ku wàccee boppam lay def ku am yërmande ci xolom du jëfi ku am yërmande lay def mhm. ku bëgg yàlla du dafay def jëfi yàlla ku bëgg yàlla te nanu xel xol mel rek noonu la cër yi jëfee lu mooy léeg-léegi cër yi danañ tirise waaye tirise gi tamit ci xol la xol bi moo moo foo mooy ngistal moo tax jëf yi di jëf lu mu gëmut mhm. moo tax dëgg dëgg jëf joo gis rek ci xol la jógee mhm. kon ki lay jàngal ni cër yi war a jëfee ak ki lay jàngal li xol yi war a fas ñoom ñaar mën ñoo yem garaas ndax kii def lay jàngal melo xol kee di kee defar xol bi carrément bu xol baaxee rek jëf baax ba mhm. ne yàlla seen xol yi lay xool mhm. léegi nag moo xam ci wàllu jëf la ku ci sunnaal sunna su rafet yaa ko njëkk def wala ci wàllu yar xol nga sunna si nga indi ci yoon wu rafet woo xam ne dafay yar xol mhm. yéen ñaar ñëpp da ngeen am tiyaabaab ku def loolu ku leen ci topp ngeen am tiyaabaab loolu yonent bi mos na ci wax mos na gis ay giir yu bokk ci mu dar ñu ngi ñëw yëre yuñ sol doy waar lool mhm. ñu gàddu seeni jumtukaay pour xaar yonentu digal leen xare yonentu xool leen gis ne sang lañ maanaam ci famille yu baax lañ bokk te sonn nañ lool ndeysaan mu yërëm leen mhm. laajte sarax ba mu laajtee sallallahu alayhi wa sallam di indi ay benn benn rek benn waaye ñëw indi lu bëre bëre bëre bëri bëri bëri nit ñi commencé koo roy ci joxe lu bëri loolu yonent ne ku sunnaat ci islam bu rafet dana am tiyaaba ga ak tiyaaba ku topp mm-hmm. waaye ku sunnaat ci islam ku sos ci islam yoon wu ñaaw da am bakkaar ba ak bakkaar ba ka ca topp mm-hmm. kon ndeke li yonentu santaane nga njëkk cee defee noo xam ne bokkut ak na ko daan nit ñi defee loolu la hadis bi di wax mm-hmm. na mucc ne nga fekk loo xam ne kenn defu ko nga di ko def parce que xadis bi dafa am sababu nuzul li tax sababu xadis bi génn waa ji dafa defee noo xam ni kenn daaw ko defee mooy joxe lu bëri mm-hmm. nit ñu roy ko yonent ne kon waa am na tiyaaba gi am tiyaabaam ñu ko roy mm-hmm. dégg mm-hmm. da nga ci déggee ne ku fekk luñ santaane yow nga defee ko beneen façon boo xam ni li taxoon lislaam jug maqaasidul islaam bi ci liñ ko defee ci lay gën a gaawee da ngay am tiyaaba ku def loolu ak la ci topp maqaasid islam mooy yar xol ak yar jëf képp ku jàngal nañ ñi ci wàllu jëf ni ñuy jaamoo yàlla bañ gën koo gën a comprendre dire yonantu daaw ko defee noonu dire saxaaba yi defee wuñ ko woon noonu yow dana am tiyaaba ko comme ni ko borom masaay bi defee waaye ku fekk euh, dégg nga yoon woo xam ne mën nga cee jaarale nit ñi yar xol ba seen xol gën a yaru gën a bëgg yàlla da nga am googu ak tiyaaba ko la ci topp dire ñu njëkk ñi daawuñ ko defee noonu ndax maqaasidu islam mooy ak yar jëf lu yar xol ak jëf nag dëgg-dëgg loolu mënul allah yàlla taala kawana ba na leen def naa leen ñoom muy isa ibrahima ak isaaq yaquba def naa leen ay mata ñu jiit ci diine yahduuna ñi ngay jubale bi amrina suñu mbir ñi ngay jubal nit ñi waaye ci lislaam ci santaane yàlla mhm. waaw waxee naa ñu wax yu ileem jëm ñoom feneen la def yu baaxee yàlla yanka wal leen def yu baaxe wa iqaama salaati ak saxal julli wa itaa zakaati ak joxe azaka mhm. wa kaanoo nekkoon nañu abidina di way jaamu la naa ñeel ñu de mhm. kon yàlla léegi mu tànn ay ñoo xam ne ñu ngi jubal nit ñi waaye ci mbiram yàlla la sukkandiku waxul yaxdu la ñu ngi jubal nit ñi bi fexli nangam ci jëfi nangam wala bi amali nangam ci jëfi nangam léegi bi amri naa suñ mbir mooy li yonentu gërëm yàlla gërëm ko ci loolu la ñuy jubalee lii nag yàlla defoon na ko Ibrahima ak Isaaqa ak Yanquba waaye naka noonu la koy defaree xeetu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam saa su nekk yàlla dafa génne ay njiit ñuy jubale ci ay mbir ci mbiram yàlla mi la ñuy sukkandiku di jubal nit ñi yow nag ngaa bañ a xam seeni tegtal wala nga xam ko wax naa la rek ni borom mazaay bi di ballaloo ci benn xadis wax yu bëree bëri mm-hmm. di ko ballaloo ci benn laay wax yu bëree bari noonu la ñuy ballaloo ñoom it ci wax yonantu ay xam-xami maarifa yu sell yoo xam ne amaana mën nga bañ a am nattukaay buñ am mm-hmm. waaye dëgg la foofu lañ ko jëlee ndax yaxduuna bi la naa la wax wax waxul yaxduuna dañuy génn nit ñi ci jëfi nangam bi amri naa ñoom it yàlla dañ leen ñuy def lu baax di ko julli di joxe azaka di jaamu yàlla ñee yàlla daf leen ko waxi waaye wala lii yàlla dana ko yenkawal ndax yonentu wax ne ne sama xeet am na ñu yàlla di yenkawal Omar mm-hmm. ibn Xataab ci la bokk mm-hmm. dégg nga kon ndeke am na ñoo xam ne ci xam péeb yàlla ba dëgg la ñuy jëlee xam-xam mm-hmm. loolu yàlla jàngal na ko ci alquran Mariama balaa ko yaa ko yenkawal hmm? xamal ko ne ko xamal ko maqaamaam moo tax wala lii dana wax maqaamaam fekk yàllaa koo xam lo ba pare sant ko mu wax ko ne ñi ngir nañ a jub Mhm. ndax nit boo ko topp doo mën a jub te wali bu ko yàlla mayee nit ñi xamuñ ko yoon la wala waru gar la mu xamal nit ñi moom mooy moom mooy kan ndax nit ñi mën koo jublu ngir mën a baax mhm. mar mariama yàlla dafa woon wees xaalate maraykatu yaa mariam waxut ba ko yonentu waxee waxut ba ko kenn waxee mhm. maraaki si boobu ñoo ko yënkawal na ko yow mariam inna laa stafaaki wa taharaki wastafaaki ala nisaa il alamin yàlla tànn la laabal la tànn la ci kaw jigéeni àddina bi ndekk kon wëlli yu yàlla dana ko xamal loo xam ni xam-xam bu jógee ci pépp yàlla bi direct la waaye jëreewu ko ci benn téere jëreewu ko ci benn nit mhm. lu mel noonu nag boo bëggee laaj wëlli bi foo ko jëlee ban nitta la ko wax fan la ko yonantu wax yow sa bopp yaa déggu diine mhm. yàlla xamal na la bu yàgg ne wëlli yu mën naa jëlee ci yàlla mhm. te ñoom ba ñuy jubal nañu bi amri naa ci mbiram yàlla maanaam lañ jëlee ci yonent bi wala lañ jëlee ci pépp yàlla ba la ñuy jubalee ñaar yooyu rek lañ jëlee ci PB yàlla ba direct loolu nag moom seen diggante yàlla rek la mhm. ak ko fa yàlla yegg loolu moo ko mën a xam lañ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom mën nañ la ko leer la nga mën koo dégg ku déggul lii na da ngay am problème mhm. waaw waaye duñ indi mukk loo xam ni ña ko yelloo xam ko danañ ko critique lañ indi boo demee ba yegg fa rek naan ndekete allahu akbar ndekete waa ji li mu wax dëgg mhm. hmm? noonu la yàlla def ci xeet yi ay njiit yoo xam ne ñu ngi jubale bi amrina suñu mbir ci aalamul amru aalamu amru nag beneen affaire la kooku mm. wali xam nañ ko ci lañu jubale yàlla yënk wal leen jëf lu baax gis nga dégg kon dafa am yoo xam ne ni yenn jëf yoo xam ne yàlla ci boppam moo koy xamal nit ki mm-hmm. léeg-léeg sax mu xamal la tiyaabay jëf dafa am ñu wax ne tiyaabay jëf kenn mënu koo xam faw ci yonantoo ñu koy jëlee waaye dañoo déggu diine rek yonent bi jàngal nañu benn waaye bu ziyaare mbokkam dem ba ci yoon wa dégg nga malaaka bi moo ko dikkal du nit de malaaka foo jëm damay ziar sama mbokk te yàlla tax mu xamal ko ne ko yàlla bëgg na la ni nga bëggee sa mbokk moomu kooku tiyaaba gam jëlee ci yëpp jooju ko yàllaa koo xamal direct jaar la ko ci malaaka ba waaw yooyu it yàlla dina ko xamal woon ñu wax la ko soo gëmee baax na soo gëmu tamit sa affaire bopp rek la dégg waaye daal ku dajalul may yàlla yi bul wet dina may gii kat ci may yi la bokk mm. may daal boo gisul lu ko dàq saxar rek moo ci topp boo gisul dàq may ga saxar rek moo ci topp waaye dàq may ga mooy lii mënul am nag dooy tegtal ci dàq dara lii mënul am dooy tegtal ci dàq dara mhm. waa booy dàq da ngeen di tegtal yu wóor yu leer nañ yu wane lii amut waaye karaama nga ne njabar la loolu dooyul tegtal ci dàq mhm. ndax yonent yi bañ indi kawteef nit ñi dañ na njabar rek dégg nga mm. maa yaati min rasulin illa qaalu saaxirun aw majnun mm. benn yonentu mosul ñëw lu ma ñu ne njabar la wala dof la rek mm. yow it njabar la rek loolu dooy tegtal ci daq dara <laughs> dégg nga waaye lii mënul nekk loolu dooy tegtal pour dàq dara tegtal daal boo ko indee nañuy xam ne ni nekku dégg te dafa am loo xam ni sax tegtal yi mën nañ ko bañ a natt ndax mën naa niru lu ñaaw ci tegtal fekk lu wer la mm-hmm. ni ki xadar dem fekk gaaru jàmbur toj ko loolu moom mënoo koo lay mukk ci sariya moom waaye nag boo xamee xaqiqatu amru bi dëgg-dëgg mbir mi da nga ko mën a lay parce que dafa dimbali ay nit te dimbali ne sariya ko santaane ko ku xamul secret bi xadari xam mënu lay mbir mi ba tax ma léeg-léegi am na yoo xam ne nattukaay bi sax borom daf du ko am parce que dafa am lu boo dajalul lépp rek doo mën a weddi loolu war a wël di wax ne ki ko war war a def mooy ku peeg lii yu mel nii moo tax dafa am yoo xam ne sañ la nga moo tax nga weddi ko <coughs> waaye boo gisoon loolu doo ko wetti hmm? hmm, am na ci mbir kon yàlla na yàlla dimbale hmm. technique yoonu wàllu yi wa qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi sama mosam dor ko mos ne man sanna ku sunnaal fi islaami ci islam sunnatun sunna xasanatun bu rafet falawu ñel na ko ajruwaa tiyaaba tiyaaba ak sunna boobu maanaam ku sos ci islam yoon wu rafet danga am tiyaaba ku sos yoon woowu wa ajru man amila ak tiyaabaab ka jëf bi yoon woowu baadoo gannaawam da nga am it tiyaabaab ku ko jëf sa gannaaw min xëy na ngeen xusal ci lu muy fay chey an dara du wàññi seen fay cheyun mais yéen xusal ci lu muy wàññeeku min ujurihim seen fay cheyun dara loolu mooy wax ji dégg nga mm-hmm. kon boo sosee ci islam yoon wu rafet danga am tiyaaba ak tiyaaba ak la ci topp te ñoom yàlla du leen wàññi dara lam leen jox dana la ko jox du leen wàññi dara dégg nga loolu nag mooy ku def ci lislaam xam nga lislaam ay maqaasid la mhm. jubluwaay jubluwaay bi mooy defar xol mhm. jëf ji dëppoog ni ko yonentu jàngalee mhm. am na ñuy dox ci wàllu xol may nañ leen liberté lépp luy defar xol ñu doxal ko jële bu njëkk wañ ko dox doxalee ndax jamono yi bokkul waaye na fekk loolu ñu indi rek jubluwaay ba mooy defar xol te xaqiqatan luy defar xol la waaye jëf tamit lépp luy tax nit ki jëfam dëppoog ni ko yonentu jàngalee nit ki mën na ko def dina ko defee noonu saxaaba yi ngi ko defee noonu dégg nga hmm? Hmm. waaye na fekk loolu nekk loo xam ne boo ko toppee ba topp ko dafay dëppoog ni yonentu doon jàngale hmm. ku def lu mel noonu nag da am tiyaaba ga ak tiyaaba ak ñoro ci topp gannaaw ko te du wàññi seen tiyaaba ga dara bu mën sam ne ku sunnaal fi islam ci islam sunnatan bu ñaaw maanaam ku sos ci lislaam yoon wu ñaaw mm-hmm. boo xam ni defarul xol da koy rey mm-hmm. bu dee jëf la dëppoo wutal na ko yonentu doon jàngalee mm-hmm. dafa safaanoog njàngaleem yonent bi kala ci topp wante nag ku sunnaal ku sos ci lislaam ci islaam sunatan doxalin si atan bu ñaaw faale yi war na ko wisruha bakkaaram wisru man amila bi ak bakkaara ko ko jëf bandoo gannaaw ba min xëyri an yeen xos ci lu muy wàññi min seen bakkaar si hum dara lu da ko tëpp yow mu sos lu bon da ngay am bakkaaru ku def lu bon loolu. lii nga def day rey xol waaye jubalu ko wala dafay féewale jëf yi ak jëf yi yonent bi waaye tegul leen ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaar yooyu yëpp ku ci def dara da am bakkaar ak ku def loolu képp ku la ci royati am bakkaar boobu pencam yàlla loolu laay wax ne ku sos lu bon dafay ñaan yàlla bu dee mbir ma fay waaye bu dee xam xalifa mbir ma di gën a ku ci gën a duggati rek bàkkaar bi fekkati ko ci bàmmeelam rek mu xaal ko rek xam nga ñun na xamuñ dara lu muy ko am mbooloo rek mm-hmm. après ak ku ko taaral rek mm-hmm. ku am mbooloo taaral ko mu dee nit ñi euh, organiser ko am xalifa yu ko doon fekk dara nekku fa ko defee da gis sax wëllu yàlla yi sax si boom wala boog ñun yaakaar na ñooy wëllu yi ak kilifa yeeg sëriñ si di leen encouragé mm-hmm. hmm? leen waa kee mooy xalifa nañ samp xalif diw muy xalifaam wala nanga comprendre ma daal hmm. hmm? ab saay-saay buy liggéey buy buy mbuwoo diine mu wóor ne kii lim nekk jubut mu leer nañ hmm. am nga bàyyi daan na moytu loolu nañu inter waaye bu ba saay-saay dafa saay-saay moom ñëw seen mbir moo gën a leer lépp mi Mouhamed Michir yi téeram moo mooy toon fi inkaar waaye daf ne moom moo dàqoon inkaar mais ñoom ñooy inkaar mooy xam ne wóor na leen nekkuñ ci dara. Mm-hmm. seen mbir dafa feeñ. Mm-hmm. ñu mel noon nag am mbooloo am nangam tax critique woo leen ñu ngi yàq ci diine ji waxoo leen dara. Mm-hmm. ñu jugee fi nga leen sampal xalifa wala ngay dox ci nan la ñuy kan moo war a nekk xalifa dafe boobu jaaxal na xaw ma yéen jaaxal man de jaaxal na noonoo nga ko ñaari yoon noonoo nga ko ba muy dund ndax amaana boo taxawee ne position yi mu xaw a reculé wala mu dellu ginnaaw wala mu bàyyi ko sax nga sàggan ko ba mu dee ci xalkaane googu nga bëgg nag xalkaane gi gën koo toppati nga di ko sampal xalif yaa ko bañ mm-hmm. loolu mooy bañal dëgg parce que loolu mooy lore dëgg kon dafa am ñoo xam ne buñ fi jugee jërul xool sax kan moo nekk seen xel yow su yoon nekkul si yow. seen mbir na fay rek ndax mooy jàmmi ka ko sos. te moom sax bu demee ba àllaaxira loolu lay bëgg mbir mi fay nu mu gën a yokkoo mu musiba yi gën a bari ci moom. fayal leen ko mbir moom baaxut. moo ku samp lu bon bun mbébét mu màgg boo fi jugee. bu dee intérêt nga ci doon wut boo fi jugee mënatoo ci am mu màgg ndax nu muy gën a màggee yow àllaaxira amul caaxaan. mbugal rek moo fekk waaye léegi léegi na fekk koo xam ne daraay diine nekkut ci moom xamut xam-xam jàngut te bàyyi daan na wax ne waaye sëriñ si nañ jàng wala ñu noppi dara sonal lu ñu ne mooy sëriñ xam ne jànguñ wax de moom na xewut de moom lu leer la wax hmm? daan na wax ne mag Sénégal xamut dara dara tus loolu day xam maanaam moom dafa bëgg a wane ku xamul dara mu nekk sëriñ waaye affaire yi caaxaan rek la yow xamoo lislaam nooy jiitee ci lislaam ku xamul jiiteem danger la ndax dafay rafetlu lu ñaaw di ñaaw lu rafet dafa am ñàkk xam-xam léeg-léeg day tax nga fekk lu rafet nga ñaawlu ko wala nga fekk lu ñaaw nga rafetlu ko kooku mënul dafa war a toppe rek loolu mooy yoon hmm? loolu mooy hmm. léegi nag nga fekk koo xam ne noonu la mel boo pare tamit jëf ji lu yàlla xam doy na lu ne ñu ngi ko ci dégg mu génn àdduna ah ngay organiser si kan moo ko war a doon parce que sa kër maam la ajoon wala sa kër baay dëgg dëgg yaa ngi tirimal sa yoonu maam yaa ngi tirimal sa yoonu baay yaa ngi def lu kenn xamul nit mënoo sopp nekk soppee ñëpp ku bëgg nekk soppee ñëpp dinaa fekk foo xam ñoo xam ne dañ leen war a contre yonent bi lu muy baax baax baax am ñoo xam ne jaas rek moo doxoon seen digganteeg bañu leen de amoon nañ doole amoon nañ xaalis amoon nañ mbooloo ndax bu ñu amoon mbooloo duñ a xeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye jaasi moo dox seen digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax la ndax jubuñ maana yi yonent ku bëgg a rey xol moomu rey moomu rey la moom daawut faral kenn kuy rey xol ndax am na matière àdduna la àdduna ko waaye léegi boo sa ba mu am doole am mbooloo am rek foofu ay su nit yaakaare ne yaakaare mbaax ñëw di la dimbale ci loolu te doo xam fuñ ko teg xëy la am xaalis rek mm-hmm. am koo joxe lan mooy xaalis Musaylimatul Kazaab ah ka ñeneen ak yeneen dañ doon woote ne ñoom yàlla yàlla la baax lañ mm-hmm. ah bëgg sax bokk ak yonent bi dara ne yonent bi moo jël wàll gi ñoom jël baatu bi nangam nangam mm-hmm. teewul saxaaba yi jaase dox seen diggante ak ñooñu Musaylima mu dëkk la daan néegu soog yonent sax pour jéem a euh, bañ a wuteeg yonent bi sallallahu waaye mu bakk mu wootee la muy woote yonent daf ne ko mukk tuddee ko fenkat bu mag bi ñoom daawuñ maslaa ci caaxaan daal caaxaan kenn du ci maslaa kenn du ko encouragé kenn du ko dimbale xeex ko muy dimbale borom kuy jël jaase dagg bu xam nga ne naa ko encouragé ci mu dagg bu xam danga koo bañ mais yow muy fexe xeex loolu ba mu dañ pour mu am jàmm yaa ko bëgg léeg-léeg nit dalay bëgg ci meloku la contour léeg-léeg nit contour la ci fekk euh, ci meloku la bëgg am na loo xam ne boo ko bëggee nii da ko contour am loo xam ne boo contouré nii da ko da ko bëgg kon su ko defee ñiy sos lu ñaaw nañ fexe seen lu ñaaw loolu gaaw a dagg gaaw a damm gaaw a tasaaroo mm-hmm. ndax mooy seen jàmm mooy jàmmi képp ku leen topp mooy jàmmi nit yi dégg teqale diggante jullit ñi baaxut waaye mooy dégg nga jullit ñi nekk ci siraatal mustaqim nga fexe ba seen diggante teqali ko kooku baaxut waaye ñu bëgg indi nag ci islam lu ci bokkut ñooñu jullit ñëpp la yàlla santaane mooy ñu ànd contrôle hmm? ñu ànd kon tuut rek dégg nga mhm. daan na wax ne mhm. di laa na war daaw mhm. mu ne ku bëgg a rey benn nit mu mel ne rey nga ni ñëpp bàyyi ne kon suñ bëggee rey benn nit na ñëpp taxaw pour défendre nit kooku jàpp ne ñoom la ñuy rey ak dégg alxuraan mu ne waaye réeral benn nit moo gën a garaaw rey ko a buñ la reyee mën ngaa dina waaye ku la moom rey na sa dugal la safara kon réeral benn nit moo gën a garaaw rey ko boo gisee loo xam ne mën naa réeral kenn da ko war a contour mhm. waaye wóor na ma ne fii nii kilifa lu mag mag bu ñu doon def loo xam ni bakkane dañ cay dee mhm. mu wóor ko ne ko lii pexe la maanaam waa ji indi na ay ñam yoo xam ne mu ngi koy tasaar daf cee def ay tooke mhm. ku lekk dee kilifa yi lu ñuy wax danañ ñàññi ku ku ku wane ñam wii dafa am tooke di indi ay preuve naa ñuy wane lii tooke la ku ko lekk de danañ ko ŋañ dañ ko ŋañ ku ko xamit da ko war a wax ku ko wax nit ñi félicité la parce que kenn bëggut a dee dañuy sant yàlla ba duñ lekk ci ñam ga waaye nag kuy def luy réeral bakkan yi moom bëgg nañu di réeral ñu ne waaw déedéet waruñoo wax nangam nangam dañuy bañ ko teqale diggante mbooloo yi nangam nangam kii kii dafa bokk ci mbooloo mi ba bay teqale mbooloo hmm? ku ñëw beru ab beram bëgg dugal ci diine ci bokkut nañ ko seppi sànni fële loolu rek moo di wax ji waaw waaye nag maa ngi laay biir ñu ña bon ñi ba xam ne bon nañ balaa ñoo dee nañ fay seen mbir ndax xadis bi rawaaw solo na ko muslim imam muslim inrdi islam masalamtuma tawfiqi illa billah ali tawakkaltu wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh